ñu ne benn maanaam prisonniers yi daal ñoom ñoo génn daal di manifester ànd ci nag ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay agent pénitentiaire yéenekaay bi ñëw na ni ki tey jile ci xëtam bu njëkk yi moom dafay xamle rek la nga xamante ne moom moo xew ci biir prison boobee di camp pénal dëggantaan yéenekaay bi di l'observateur ñëw na ci ba tey yéenekaay bi di l'observateur am na benn mbir boo xamante ne wax na ci ni tey nee na daal am na l'enquête boo xamante ne ibbi nañ ko ca Medina Gounass ak coow bi nga xamante ne jógoon na fa nee na daal am na yenn arme yoo xamante ne teg nañu ko loxo waaye tamit teg nañu pôle euh, bi nga xamante ne moom moo war a saytu lépp lu jëm ci l'enquête yi nga xamante ne war nañ ko saytu foofee mu nekk mbir boo xamante ne yéenekaay bii di enquête daal dina cay ñëw yeey yàbbi ni tey jëlee les dessous d'une vieille maanaam dafa am mbir boo xamante ne tey jii la daal di jóg ci kaw waaye yàgg nañ ko daal di ruumadaat ci suuf loole moo nekk euh, yéenekaay bi di enquête lim ñu daal di xam leen ni ki tey jëlee beneen yéenekaay li nga xamante moom moo ñeex tey sànq janju naa ko ak yéen kaay bii di l'observateur ciow li nga xamantene ne mu ngi jog niki ki démb ah, camp pénal mu nek nak loo xamante ne yéen kaay nañ ci niki tay ji lu ci melni ni suux japp jàpp ne li nga xamantene mom mo indi problème bi moy ah, fofé ci chambre numéro 8 bu camp pénal dafa ñuk dañu jog ñi nga xamantene ñom ñoy ah, manam garde pénitentiaire yi dem ngir xol néeg ba ndax nee nañ daal dañoo njortu ne boo xamante ne na fa lolé nak moy indi coow la euh, ba dal mo indi ap euh, manam euh, mbir ya dal dal di indi ap coow fofé ci diwaan bañu ñu kon cap camp bu Liberté 6 administration pénitentiaire ñom ci sen bop dal indi nañu ap xibar léral ci yenn ci ay xibar on a entendu discuter sur lui donc des sujets qui concernent les deux pays le Sénégal et donc la France à quand la récupération des milliards volés au le Sénégalais, l'interrogation est posée par le journal La Tribune ce matin, la presse harcelée, les voleurs de nos euh, milliards, cela euh, coule. Douce nous dit le journal ce matin, la réduction euh, des privilèges attachés aux fonctions politiques est nécessaire donc pour un Sénégal meilleur. Le journal donc, La Tribune est revenu sur cela en sport, Mami avant de passer bien sûr en version Wolof, d'abord commencer avec Sunyu lambe ce matin. Ce dimanche, Griboldo fera face à Amabalde. Ce sera la, dernière bataille verbale, bien sûr, avant le combat qui doit se tenir, je rappelle donc, le 30 juin, dans quelques jours. Et pour finir avec le sport, le football, euh, on verra qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Copa, puisque la 48e édition va se lancer à partir de ce soir, euh, au même moment en train de jouer l'Euro. De l'autre côté, dans le continent américain, on va donc démarrer la Copa América. Vous avez vu, le journal Star en a fait focus ce matin, sans oublier le jeune Sénégalais qui est euh, convoité justement par beaucoup de clubs sénégalais, beaucoup de clubs euh, européens, dirait-on, qu'ils sont en Angleterre, en France ou bien en Allemagne, un peu partout dans l'Europe. Le, dans, Camara qui, euh, en tout cas, comme on le dit, attire tous les projecteurs sur lui, puisque son club, l'Olympique ou bien le Metz, sera en deuxième division. Mais Paraît-il que le jeune ne veut pas rester et aussi, il faut le dire, le jeune veut aller tenter d'autres aventures. On verra qu'est-ce qui justement donc sera de cette, euh, en tout cas, quelle sera l'issue de cette pépite sénégalaise. Lamine Camara, est-ce que va-t-il aller donc dans un autre championnat euh, qui, outre que la France, on verra c'est la une des journaux parus euh, ce jeudi on y va pour la version wolof. l'observateur comme penge to moom lañ koy daal di ak coow li nga xamante ne xew na ni ki démb ba léegi mu ñeel nag lii nga xamante ne moo ñel euh, coow bi jóg foofee ca Campenane